comme euh, nu ñu koy defee chaque matin coach yi yee ngi nii toog euh, jug nañu sax fi mu nekk nii jug nañu parce que san gis naa leen ñu étiré wu ginnaaw bi ñu leen nuyoowee xam ngeen ni lundi ak mardi comme Pape ni mu ko waxee yaram yi day diis donc ñu laaj leen lan la ñu fas yéene andil tey ak après yan conseil la ñuy joxe coach nuyu nañ leen coach euh, non et puis Alfi mu naan et puis <laughs> waaw Pape yow tam doo wax nee na ma efi yeewoogul yow dama lay jox ay exercice de kon ah, dafa biddanti dafa biddanti ça va coach merci tey lan la ñu fas yéene defar dañuy continuer li woon démb effectivement dañuy continuer tay boobu waaw mais tay sax na de ah, waaw yombul de ah waaw ah, c'est technique waaw ah, mais ku ko mënul bu intense bi daal mën nga am nga option yi. waaw am nga option yi. ci rythme musique bi nga jël. bi nga jël su dee musique bi dafa intense. Mhm. donc mouvement yi day intense su dee musique bi dafa low. Mhm. mouvement yi day low mouvement bi day low donc kon ñu bàyyi leen ak ñi ñuy le corps, étirer les épaules. On va échauffer le haut du corps, le bus. Donc, on va bien étirer les épaules pour bien entamer l'échauffement. Ok, maintenant avancez la jambe gauche. On va commencer par des directs croisés masse. Allez, c'est parti. Direct croisé, gardez la poitrine haute, les épaules rentrées, les abdos serrés, visez loin devant. Visez le menton ou bien le nez. Encore Continuez à donner des directs croisés, décoller le talon arrière pour un bon appui. Continuez à frapper, genou avant fléchi, pivoter droite gauche. OK Les directs dans 4 secondes, dans 3 secondes, dans 2 secondes maintenant, on va placer les uppercuts. Uppercut, Allez, c'est parti. Une, deux, trois, quatre. Encore. Donnez encore. Visez le menton. Continuez à donner des hypercutes. Voilà. Maintenant, on va passer à la combinaison de direct, 4 directs et 4 hypercutes. C'est parti. 1, 2, 3, Maintenant, un peu plus de force, de vitesse. Ok, les amis. Le travail continue. Le cœur commence à s'emballer. Encore 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. On va placer maintenant les crochets. C'est parti, masse. Crochet. Ya. Yeah. Gauche, droite. Gauche, droite. Pivoter. Décoller le talon avant comme le talon arrière. Le travail continue. Visez maintenant les tempes. Visez les mâchoires. Encore 4 secondes, 3 secondes,

Allez, on évolue. <laughs> Les kicks maintenant. Kick, échanger. Kick, changer. Kick, changer. Kick, changer. Kick, changer. Kick en option. Levez juste les genoux. En option. <laughs> Allez, En option, juste les genoux. Sinon, kick. Alors, se prépare. Le dernier exercice pour le matin. Encore trois. Encore deux. Encore un. Laissez là. Laissez là. Mettez latéral. Regardez. Un. Un. Deux. Et trois. Latéral. Un. Un. Deux. Et trois. Mettez. Un. Allez, encore deux. Go. Une dernière fois. Pour finir. Stop. Allez, relâchez. Étirez. Sur le côté. Très bien. Même chose changée. enrouler les épaules C'est toujours un plaisir de vous accompagner tous les lundis les matins Olympique de Dakar. yaa Mor Diouf. yes et coach bi ngoog. yëf yaa mais bii moom saf na moom coach. bii moom xaw ma xaw ma ndax bii dinaa ko mën a reprendre vers 17h. ah kay mais option kii bi laay jël. yi ma la gis nga doon def fële moom macha allah. <laughs> donc euh, yeewu ji ma ngoog ngeen mën ko reprendre ci li nga xamante ne mooy euh, replay bi su ngeen demee yeewu leen replay di ngeen ko mën a reprendre ñu àndoon ci ak waa Olympique Club ñu leen di jox rendez-vous semaine prochaine coach. ñu ngi leen di jaajëfal. merci beaucoup kon euh, Baye Cheikh Baye Cheikh. day jël café. Baye Cheikh tay boo ci ginnaaw <laughs> boo paree sa essoufflement da doon da doon tay boo mi ngi woon ci ginnaaw. donc may may ko di def kii xam nga xam nga ñii macha allah dañoo am dañoo am euh, capacité dee Pape Cheikh. moom récupération waaw du du mu jël ay 30 secondes 1 minute. Mm-hmm. soo ko a waxaat pour a waxaat sinon du wax parce que moom a wax. du mën a merci.